mbokk yi ba tey ñu ngi biir Pikine génnuñu fi ba tey ñu ñëw seet si Sophie la princesse des guerrières moom mi nga xamante ni euh, li wolof naan foo dem fekk fa ay góor toog jigéen a ngi ci wet gi di leen dooleel moo waral tey ñu ñëw ngir waxtaan ak yow ci écurie Xam Sa Cosaan euh, gannaaw loolu da ngay présenté wu wax lan nga ci écurie bi ak ak lan moo la dugal ci làmb. ah bisimilah rahmaani mm, maa ngi julli ci yonent bi ñu gërëm samay ñaari waajur ñaan yàlla yàlla xare leen na ak mbooloom ñu fa fekk ah ma may Sophie nag laa tudd ñu ma wax la princesse guerrière ah, kontaan ci yéen waa wasaare làmb bi ngay ñëwee ci sama kër gi kontaan naa ci trop macha allah. Mhm. xam cosaan. xam cosaan xam dama ci am ay rakk yu bëre. Mhm, ndax Zoro sama rakk la am Ziñoon sama rakk la jarli ak Sok ñoom ñëpp samay rakk lañ. tey ñu dooleel la indi la ci biir te yàgg nga cee nekk naam mosoo cee jógee loolu lan la lay def. xanaa am ci kontaante bu rëy macha allah kontaan naa ci trop franchement parce que bëgg sport am naa ci kontaan bu rëy. Mhm. mais xam sa cosaan bi ñu xamoon Sophie ak xam sa cosaan bii ñu gis bokkul xam sa cosaan bi ñu gisoon ay champion ñoo fa nekkoon di bëre di daan léegi mbëru xam sa cosaan yi sax ñoo gën a gaaw sax escalier. ku bëgg a jaar yéeg sax ci ñoom lay jaar lool lan la. non loolu moom duma ko nangu moom xam cosaan mu njëkk ak léegi ñoo fi nekk ba tey parce champion ñoo fi nekk ay daanaa na fi nekk aussi mhm. cest à xam naa nu mu demee nii saison bi ak feebar bi moo tax affaire yi xaw a kii mais ay champion ñoo fi nekk ay ndaanaan. avant feebar bi la ngeen daanu. soq dugg na ci TFP bi gis nga li fa def jat lii bëri na arène nationale gis nga ni mu def yeneen xale yi Zoro tamit gis nga. non Zoro combat mujj moo am ndam. moo daan nga ci dynamique defet yi nga xamante ne teg la. yëpp ndoga yàlla suñu borom rek la. ndax nit moom chaque jour booy jël pay ah, di dem di dem di dem war ngaa toog xoolaat sa bopp il faut yàlla am loo ndogal boo xam ne da koy teg bu ko defee da ngay toog réfléchir xam bu baax lii mooy sa foot li mooy sa défaut bu ko defee booy demaatee. di nga xam fooy teg sa tànk. amul yu ñuy def ci biir. Hmm, non man gis amul. am na am nañu erreur yu ñuy def. Hmm. am na erreur yu ñuy def mais lépp dañ koy waxtaanee en famille. Hmm, ndax yére tilim yi moom ci biir kër gi lañ koy fóotee. dafa mel ni yaa ngi waaj pour dugg si ci làmb ji ñu gis euh, euh, Sophie production yaa ngi koy waajal. waaw maa ngi koy waajal bu baax a baax macha allah parce que boo gisee aussi ma bugg cee dugg. ndax dama kon nu ma ko waxee damaa bëgg sport. man damay seetaan làmb football lépp damay seetaan surtout làmb làmb dama koy seetaan bu baax gis aussi euh, xale yi ñu bëgg a bëri dafa bari licence yi dafa bari en plus xale yi dañoo bëgg a bëri daal ma gis ni pourquoi pas war ma mën a dugg ci làmb ji. pour jàppale xale yu bari parce que xale yaa ngi dem ci gaal yi di dee boo ci amee ci koo xam ne nii boo ci jàppalee saison bi bee nga jàppale xale yi ñu bëri kenn ku nekk di am loo mën yóbbu sa kër daal. Mm-hmm. loolu laa ko gisee daal. moo tax ma ne pourquoi pas war ma mën a dugg ci làmb ji pour jàppale xale yi. Mm-hmm. Mm-hmm. dañuy gis jigéen ñi d'habitude bu ñu ñëwee ci làmb dañuy dugg tuuti ñu daw. so est-ce que pare nga pour toog ci làmb. pare naa ci toog moom bu neexee yàlla allah ci bàq sëñ Fallou. pare naa ci di ci toog. bu neexee yàlla incha allah. Euh, ginnaaw loolu président bi xam naa ni dem nañ ci délégué de quartier bi ba mu jébbal ko li nga xamante ni moom la ko dénkoon. muy écrit bi laaj na délégué bi mu ne ma dama ko koy delloowaat yow en tant que jigéen lan nga gis. ci président Malick Gningue bi. mi nga xamante ne jëlaat na écrit bi président euh, ki nga xamante ne mooy délégué quartier bi moo ko joxoon mu delloowaat ko ko délégué quartier bi bi ma ko laajee def na moom pare na pour delloowaat Malick écrit bi mu yoraat ko nekk njiit gi yow ban gis nga ci am. loolu dañ ci rafetlu bu baax. ndax Malick Gningue moom ku ko gis moom xam ne dafa bëgg sport aussi dafa bëgg xale yi waa xam cosaan ndax xale yi ku ci am combat da ngay dem këram da yëkkati dooleem jox la xam dalay taxawu ci biir làmb ji taxaw la sa biir kër te loolu yombul jamono ji nit ko def day bàyyi itam yëpp ñëw bañ ko ba xale yi dañ koo yëpp da ngay dem këram. nga gis xale yi dañuy daje moom ci medd bi di bëreeg moom di kaf ak moom lépp rek ci moom la parce que am na noo ne bu ko meloon ak xale yi xale yi am fit loolu loolu dañ ko ciy sant gërëm ko dañ koo teg ci loxoom daal dañ koo dellu dañoo delloo buum sa boy boy ba mm-hmm. waaw macha allah kontaan naa trop te xam naa dina ko jëmale kanam ndax ci la nekk. dafa mel ni pare nga de. <laughs> dama engagé wu. <laughs> Euh, Sophie ñu gis na nga dugg ci géew làmb mu doon géew boo xamante ni euh, bari na ay pàq-pàq ak yu mel noonu euh, tey lan moo lan kan moo kan moo sa ginnaaw. au fait da am ñu ñu lay jàppale wala yow yaa yor sa moyen bopp dugg ci làmb xool ni làmb war nga ci mën a dugg pour jàppale xale yi. waaw daanaka ñun ay taal bi Sëñ Fall rek lañ te lépp lu ñuy dugg rek dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu ci ndam ñu nekk sama ginnaaw nag bari na ñu nekk sama ginnaaw bari na mun maa toog fi di lim mais ñu nekk sama ginnaaw ñëpp bari na pour ma jàppale bari na trop macha allah. Mhm. Euh, fi mu toll ni am nga licence pour dugg ci làmb ji tëgg. licence waa incha allah dinaa ut licence bu neexee yàlla incha allah. Hmm. waaw pare na ba soobee yàlla incha allah. promoteurs yi gis nga ni mu mel ñaari kuréelu promoteur ñoo am promoteurs yi ñiy def nii ñiy def nii Sophie bu ñëwee ci ban ci ñan la jëm. non promoteurs yi am na ci ñoo xam ne ni ak managers yi samay xarit lañ. Hmm. parce que man kon nu ma la ko waxee sànq sama rakk doy bëre. daanaka boo amee combat lu bari maa koy lijjanti maa am promoteur yoo xam ne ma woo lijjanti combat sama rakk bëre dama ñoo xam ne damay dem seen kër sax di toog di waxtaan ak ñoom mais su ma duggee rek ma maan seen ginnaaw parce que ñoom ñoo ma jiitu ci affaire yi maan seen ginnaaw daal. am na ci ñu bari ñoo xam ne ni mënumaa suti seen tur fi mais xam naa ne dinaa leen ci woo ñu gën ma cee jàppale gën ma wan yoon bi daal. Mhm, parce que damay doog commencé. Mhm. am nii nii nii yu ne sa xel. waaw yu bari nekk na sama xel moom macha allah. Hmm. mais loolu après la. mais est du Sophie du doon Sophie boo xamante ni euh, mbëru Pikine lay doon waa xam sa cosaan rek ngay tëggal dëkk Pikine rek mooy bëree. loolu moom amul parce que man nee naa am na yoo xam samay xarit lañ man am na mbër yoo xam ne dañ may woo li ma Sophie combat lañ bëgg ma woo promoteur bi. mu teel leen combat. te ñoo njëkkuñu sax Pikine ñun ñëpp la am na waa xam ne lañ nekk am na ay yëmbal lañ nekk bari na. na franchement mais du suivi promotrice Pikine ñëpp la. da ngaa xale yëpp. ci commencement bi déggoo lu ma la xale yëpp. amul waa Pikine amul waa dara su ma nee ñëpp rek ëmb na lépp. Mm-hmm. nan nga gisee wasaare làmb. kontaan naa ci yéen trop franchement ndax yéen seen li ngeen di na kontaan naa ci. macha allah di la ñaanal yàlla ngeen jëm ca kanam. ci doole sëñ Fallou. dinañ la accompagner dinañ la jàppale dinañ la dooleel ba fi nga bëgg a toll ci làmb incha allahu rabbi yàlla yóbbu la. amiin amiin amiin ñu fekkee ko ñu ñëpp. ñu fekkee ko ñëpp. Mhm. ci barke kon ñu lay jaajëfalaat bu baax a baax a baax. waaw man maa leen di jaajëf bu baax ci déplacement bi. ci lépp di nuyu ñëpp ñu nekk sama ginnaaw ñëpp mënuma lim tur mais ñëpp ñu maa leen di di leen nuyu bu baax a baax di nuyu waa pikin waa ginnaaw raay Ali Ndaw délégué suñu délégué bi maa ngi koy nuyu di ko gërëm du ko sant bu baax a baax parce que nekk na chef de quartier boo xam ne tan xamul ñu ci dara lépp lu ñu bëgg soo ba ngoon jot moon ci wax dëgg yàlla maa ngi koy ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér yaram yàlla may ko xewul bu bari bak sëñ Fallou promoteur yu góor yi promoteur yu jigéen ñi waaj leen te xam ne Sophie la Tigresse mu ngi ñëw te incha allah rabbi bu ñëwee dina neex dina yëngu ma koy jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal ba incha allah ci beneen xew xew la làmb jaa ngeen jëf.